lii Ama xeex mosuma ko mais Ama da nga yokk xeex bi foofu la ñu laaj mu ne wóop pop ba pare. wóop pop pop kon lu ma lay wax rek dina àdduna kon lu ma lay wax rek dina boo boo amee ay supporters yoo xam ne dañuy kontaan ñu lay seetaan dañuy bëgg a joxe leneen. parce que daal na dem daani waaye kon lu ma lay wax mënoo dëkk Pikine ba pare mënoo xeex. mënoo dëkk Pikine ba pare mënoo dëkk Pikine ba xaw yar la. ana yoroo seeraas. xam na dem fépp da mënoo xeex yaa xam ne nag mooy def rek nit ñi fi mu mbër ay mbër lañ dañuy gis ne lii daa yomb nañ gis nañ ni tugg nañ dem ba man Zil Balla sax moom mooy conseil dama ko Zil mënu ma ma ne ko wallaahi barke Serigne Saliou Mbacke ma yàlla Gris Bordeaux baa ma xeex moom ba a bëri jéeg ba dem bëri jéeg parce que xam nga ne yaa commissaire Pikine bu baaxee yow la bu bonee yow. bu bonee yow merci beaucoup. yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla oyofal yàlla. yàlla defal leen jàmm ñun ñëpp képp ku ñëw rek. yàlla na leen yàlla defal jàmm ak yéen ñi ñu yëpp yàlla na leen yàlla. nga ñaanal leen sa frère Ametaya ku daan sonn cee bis tey yàlla def fekke wu ko. gis nga kon lu ma la yor rek tey dem naa tey xam nga man sama bu may bëri si suba si damay dem Almere si ziare sama mag. Papa Balde. Papa Balde moo fay jóg ñu bëri la foofu sama papa la. waaw sama papa Balde la parce que. dafa am lu mu def ci yow kon lu ma la yor rek kooku mooy sama papa la. sama mag la sama lépp la. Mm-hmm. kooku lépp lu ma am si àdduna kooku moo ko gënal si àdduna xam na moo doon toog di wax gars yi naan leen del foog ñi ñooy mbër bi kii mooy champion bi mm. teel ma def jom mm. teel ma def euh, bañkat yàlla xam na def la bañkat kon tey tey ba ma duggaatee ba ma duggee ne amee taaye chaque sept heures du matin ma fàtte mu chaque six heures du matin amee taaye moo ma yee si buntu kër tey tey ba ma tey tey ba ma yeewu suba gisuma ko am naa ma kii ba ma demee almeer yi tamit am naa vide bu mettee mett parce que dese mosuma mett parce que damay xam ne lépp dafa war a am waaye boo amee wax dëgg yàlla jàpp na ma parce que boo xoolee moom buy ñëw buy ñëw man damay préparé wu sax. Mhm. kon xeex boobu lay wax mu muy a dal sama kaw. ay kuule yi ay kuule yi moo tax man dama koy préparé. maa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom. amiin amiin nan la bàyyi nga dem noppalu ji nag waaw waaw. ah kon xalaatuma kon mukk ci àdduna ah. waaw waaw. di ko conseillé mu ne a grand amoo tey loo may yeb kii damay xeex ak moom pare a bëri ak moom fan la tegoon wax jooju sa mën bëri sa fit wala fan gàllaaj wala la yow du gàllaaj du def dara dé fii lañ dëkk dëkk géeju yaraan comprendre na géeju yaraan loolu lañ dëkk xam nga tey am na ñoo xam ne dañoo dañuy mun soow am ñoo xam mën nañu wax am ñoo am loo boo damay xeex fii ci bés dañ naan kii du wax dëgg. waaye man fii ku nga xam sama général xam na ne man du ma dawal góor barki maam Seera Fall. waaye dama jarul jarul ñuy wax. comprendre liggéey ñàkk jëriñu la ñu wax. comprendre kon la am ñoo xam ne dafa am ñoo xam dañuy xool si yow am na yoo xam boo ko waxee rek ak jëf yi yoo ko waxee rek dañ lay topp comprendre mm-hmm. ay jàmbaar la ay bañkat la te bëgguma leen déclencher moo tax chaque jour rek dama naan yàlla baax ku dàq yàlla waaw lan nga si leer dañuy dañuy gunge da wax dañuy gunge booy ñaar dañuy gunge booy ñaar yàlla ko suñu borom fii mu nekk am amul combat ah. comprendre waa Pikine am combat rëg la ñuy jàkkaarloo gunge suñu suñu booy ñaar gunge ko dem yàlla may ko ndam ba pare après page ñu tourné ko ñëw si ama ah, loolu du problème yàlla may ndam booy ñaar ak Cheikh. maanaam fii rek moo lay jàll. Serigne Zahra Bale yaa jóge ba Kaolack yaa jóge ba Kaolack ngir jëmmi Ama Baldé te mosoo koo wax xam nga mu wax. maa ngi koy doog a gis tey. di ko génneel ay sarax di ko ñaanal di sox ci ay combat. waaw li tax ma koy def mooy. Serigne waa ji xaw ma ko de. ndax mosuma koo gis. mais xol bu rafet bi ma am man moo ma moo ma motivé man ma jógee Dakar ñëw ba fii. Ah. man dama koy bégee di ko siyaare Saalum laa dëkk mais ma mën si amaa man maa def xeex naa ci xuloo naa ci sonn naa sànq nga ne ba guddi musul def naka su dul noonu champion la jàmbaar bu mu man amul lu may ragal ci moom gis ko kii boo seetaanee mag si cosaan boo ko jëf bu parcelle ko ñu nga xam ne kon suñu rànk ñu nag moom ñoom dafa yàgg moo tax ñuy jéem a daw moom rek a jéngu xale bu ndaw boobu la gënoon doon ama da koy indi yàlla na yàlla mottali yéene bi jàppale ko amiin suturaal ko moom ay njabootam ak gaynam gaynam xaritam doom gaynam xaritam daf tey Ama Baldé indi indi na ndam lu ne métti waaw sant yàlla rek sant yàlla ñu sant yàlla bu baax jub sinante bi waaw di sa dib barawaat comme ni lay wax rek santaat yàlla bu baax di sant yàlla moom ñu ñu séddee nii ba pare waat di baalu waa ak waa Pikine bu baax a baax di baalu waa waa Pikine di naanum taxawoo bu baax a baax comprendre di baalu na kër gi ma nekk ak parce que euh, mun naa la fii laa préparé combat bi yëpp ba may dem tax ngemb rek laa jéem dem tax suñu kër ngemb waaw maa ngi gërëm waa kër gi bu baax a baax di gërëm sama xarit bi fi nekk Abdou Rabo xam na di gërëm Malaw Seras di gërëm Motombo xam gërëm Sa Fandum xam na di gërëm Jokob Balde di gërëm Pogola di gërëm Babacar Balde ñoom Ousseynou Mané ñoom paa bi écrit Falla yëpp maa leen gërëm bu baax a baax a baax a baax Ama ñëw ci ñi nga bëree parce que Ama tey dan ñu bëri danoon ne Ama Balde bëri bi mooy santam Ama Balde yóbbu Gris Bordeaux Algérie gaañ ci loo xam ne ay man naa ni tey bu ñu doon fekkoon da di carte tey jubloo ko ñu bari tey parce que ñëpp ñu doon jox bëri bi waaw dëgg la xam nga rek xam nga moom kon ne ànd moom ku xamul xamul rek xam na mooy loolu xam nga tey dañuy dem ba xër rek xër moo ñu bëgg xam nga kon gis nañu gars yi ni ñu toppee xëree bëgg ñu ne bëri daan moo si kii ñu dem bëri ji daan comprendre loolu la rek waaye fii Pikine mënoo fay dëkk ba pare doo mun xeex doo ñeme xeex même bu fekkee mënoo sax mënoo da ngay ñeme xeex comprendre loolu la rek yaaxamte rek moo ñu kii boo xoolee man sama sika bii sama sika bii boo gisee nii waaw xam nga day dégg chaque jour fi ma euh, bëri tudd kàmb ya mais foofu boo xeexul doo lekk. doo lekk waaw wóor na waa kàmb lañ des moom. heure añ bi day tegu. boo lekkul boo xeexul ba doo kii doo doo doo lekk doo añ. Hmm. ñu ngi koy def ay ati ati ati ati comprendre xëy na yaa xam te rek moo tax ñuy yaaxam suñu ànd di jël coup. pour bëgg a supporter dem daan rek loolu waaye suñu bëri bu ñu ko réglé dañuy sant yàlla ñu ngi ci biir bëre bi nga jàppante Gris Bordeaux pare nga ñuul kooku lan la moom mu am lu mu diwoo wala yow am loo diwoo. non Gris moom moo am lu mu diwoo. moom moo am lu mu diwoo. moom moo amul lu si loxo. ah non non ah, ah, mel ne après. waaw de billahi. Ah, après gisoo du ma jaawale ñaari mbir am xam ne tu ma am. bi noonu la ginnaaw affaire bi ah. ginnaaw affaire bi noonu la ginnaaw kenn mënul lekk wërsëgu kenn. muy képp mu munti yooyu. kenn mënul lekk yàlla lu jot rek da koy def. da def lu jot dafay yomb tey ñun amuñu xolu ñaanu kenn parce fii ñoom Tyson la woon ñoom Tyson dem mhm. fii nit mënul continuer kon lu ma lay wax rek àdduna dara sincère ñaaw rek moo sincère moom mooy xëy rek yokk ama doole day wàññeeku lépp day wàññeeku àdduna amul lu dul jeex léegi nag bu fekkee day jeex rafetalal doomu aadama yëpp xam ne àdduna amul benn solo man ne man lu ma yéene sama bopp ak lu ma yéene mbëri Pikine yëpp bu fekkee lu bon la yàlla naa si jiitu moo ñaa suñu frère la suñu lépp la wallaay xam na loolu am la waaye xam na parensaay làmb làmb moo fiir parensaay boo gisee camp bu wax yow mbër bi dangay bëgg a dem waaye dangay ragal boo fa demee xamul loo fay fekk. moo dal Boy Niang dal moo dal keneen ak keneen waaye ñun ñëpp ñoo far dama yaakaar koo xam ne bëre doo bëre doo def dal kon nañu yéenante di wax am waa Pikine te baax na nag yàlla bëri na sutura waaye dama ne la xale bu fii toom fondo suñu mag ah. muy ñoom ñëpp laa wax man Ama Baldé maa Eumeu Sène suñu mag la suñu lépp la comprendre ah. la bu bëggee laal Franc da na Pikine mënu kenn mënu ko fee daal ah. na lekk avance man pare naa di gën a waa gaan bu baax a baax waa gaan bu waaw waa gaan bu sànq ama de sax am benn boy bu jógee Kaolack ne ma dama bëgg ama ama sax xamuma hmm. ah, fii laa yem añuma ndékkiwuma dama bëgg ama naa ko gis rek ma ne ko ama mu ne ma maas parce que dama ko bëgg te xamoo ko tey ana maas fu mu nekk xam naa ne sonn na fexeel ba gis ko tax te ba maa lay ziar bu baax a baax di ziar waa Kaolack bi yëpp di la maa lay baax a baax tamit di gërëm tamit waa bu baax a baax xam nga di a ma lay wax rek gën a bëgg nekk lay jógee fu nekk lay demee maa ngi masawu coono koo xam ne gis naa la gisuma la koo xam ne faran na une semaine ndax Ama Baldé maa lay basaw coono bu baax a baax xam ne ñoom ñoom lii lañ bëggoon mm-hmm. yàlla def na kon nañ sant yàlla bu baax a mm-hmm. Mm-hmm. képp koo xam ni joxuma la loxo wala dew ma toog rek nekkul à coobare Ama Baldé dama benn solo mais xalaatuma ko waaye man xalaatoon naa man xalaatoon naa avant may dem bëri il faut ma xeex Gris Bordeaux dem bëri ba pare parce que lu ko digoon la nañ ko oyof loxo waaw parce que parce que xam rek kon àdduna kon luñ lay wax rek weesu yi si àdduna xam lu weesu moo tax ñun xam ne ko lu lay wax rek ñun amuñu géwal amuñu dara mm. taalibe yàlla lañ mm. yàlla lañ gëm moom lañ kii amuñu kenn koo xam ne mooy loolu ku ñuy mm. waxal ak ku def dara comprendre moo tax keroog moo wax la loo fi def kenn defu ko que téléphone bi daa fayoon waaw Modou Lo aussi dañuy ñaan parce que waa nga dig waa Pikine ñaan yàlla kon lu ma la wax ba ma dama la cercle la rek comprendre dama la cercle ne la carrément moytul ku am ku yàlla gërëm moytu ko am bayre ah. waaw cercle la rek bu tax bu daanee day teguwaat fu mu war a tegu maa leen di ñaanal bis boobu muy jàmbaar bu ko tëgg yàlla suñu borom sotti ba lépp luñ si bëgg rek yàlla suñu borom defal la ko comprendre man kon lu ma lay wax ne damaa tourné beneen page mhm. damaa tëj page tourné beneen page bu ma joxee yaaw jaar sax damay bëri mhm. nga wax leen Gris Bordeaux nag bëri ngeen tey yàlla may la ndam xañ ko te vraiment nit la ko sportif tam nga wax ko lan waaw dañuy sant yàlla rek mhm. kon lu ñu lay rek ñun ay adversaire la bu fekkee def naa ko ko métti wala defoon naa ko lu métti de adversaire la rek moo na jeex na maa ngi koy masawu coono di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm moo xam lu mu bëgg yàlla ko suñu borom defal en tout cas lu ma lay wax rek sama dëkkandoo yi ñu waa koñ Pikine sama dëkkandoo yi maa leen di jéggal bu baax man damay jékki-jékki nekk raar si koñ bi une semaine mhm. waaye su ma ñëwee barki yàlla koñ bi day fees dellu mais boo ñëwee ñëpp koy kottu dóor nag dégg naa mayo nit ñi jàmm boo ñëwee ku ne ngay jàpp kii am na am na kon lu ma lay wax kon lu ma la munoo may ñëpp xaalis waaye mun na may ñëpp jàmm comprendre comprendre munoo may ñëpp xaalis waaye mun na may ñëpp jàmm nit ñi nit ñi amuñu amuñu dara amuñu dara suñu man lu kaf ak fooree loolu rek moo seen sac comprendre loolu rek moo seen sac tamit loolu dama leen koy defal ba keroog muy jeex parce que tamit bu ma amee bis ñoom duñ dañoo dañuy fàtte lépp ne Ama Baldé la mhm. kon maa leen sant di leen gërëm ku fi ñëw indi ah, yóbbaale métit maa lay masawu coono bu baax baax ku fi ñëw indaale mbégte yàlla na mbégte bi continuer maa ngi masawu coono ñëpp ñu ma yëg ak ñu ma yëgul ñu ma gisul ñu ma gisul waaw taxawaayu Dakar Buzz suba ñu topp la waa yow ma ne la tey tey kon ma lay wax rek jaru waaw jaru wax sax waaye tey dem nga ba rëccal ba am loo wax waaw xol mooy yëngu yàlla na suñu borom def jàmm waa sans limite waa Dakar Buzz a yàlla a ñu fi ñëw ñi ñëpp tax kii ma leen waaw waaw si a baax di la leen si ko faako waa jëkkëru sama sama dafa am combat góor gi doomu Maalo Seras. Eh? waaw. Babacar aussi waaw Babacar Balde Sokka Balde Maalo ñëpp am nañu combat. Ah. suba dañ ko siy tegaat. suba ko kon napp la amul. non ba le 21 jeexul neexee yàlla. Eh, la laaj bi li ma koy laaj. wóop pop pop pop wóop pop pop pop wóop pop pop pop wóop pop pop pop waaw waaw waaw. Ama Baldé Ama Baldé ngi ñëw mbokk yi gis nga làmb waaw làmb daa dégg waat combat mu demee nii wet kenn laa ilaaha illallaah Ama Baldé Gris Bordeaux arrêté na si bépp mais Makan Gris Bordeaux li mu mënee ci lañ ko mënee tey. day mérité wul de day mérité wul waaw boo ko xoolee xam ne entraîné na waaw forme am par par abandon daal am nañu bëri nañu ci dox ci bëri Gris jàpp na ci tànk Ama Baldé Ama jël na ko. Hmm. ci biir bëri bi. ndeysaan bu bëri xaw na ci biir bëri feeñ na làmb na làmb waaw mais boo xoolee grand compte petit la woon boo xoolee petit yëpp ñoom ñoo daan ñi nga xam ne ñoom daan grand yi voilà boo duggee ci kaawu Liss Ndiago bi ak ki nga xam ne moom moo di sos nga dugg ci kaawu Ada Fass ak Gouye Gui ci kaawu Gris Bordeaux ak Ama Baldé mais ci petit yooyu yëpp nag ci forme Gris Bordeaux moom moo ko fi indi ci grand yëpp ñi des yëpp kenn andiwul état wallaay bee guy gi la des na liggéey bi des na bu baax a baax a baax ndeysaan bee sos na tamit aussi noonu Climato daal la nga xam ne moom moo ci liggéey te gis nga ko ni ko yàlla fay forme donte daanuñu ko wël bi gàngu par décision de arbitre Papa Gueye deux gis nga ko moo daan bi nga xam mu bett ñu bari tamit Papa moom dañ doon wax naan bu mu bàyyi waaye na bàyyi Papa Gueye man maa ngi koy ñaan na dem États-Unis nañ ko may visa États-Unis jërëjëf Makan Ama bi pass. waaw loo xamante ni mardi nga koy waaw solo midi

Let's go. xam nga lii bu doon def ci biir boo waree bëgg ñu ne la si génn. non seen bu ndaw kay garaaw. eh ndax bu ndaw waaye ñu ko mat. mais loolu dara du ko am mille abonné bi côté bi dara ñëw. Thank you. dinaa defar seen mu ndaw sax bu làmb amatee làmb bi fii ma ñëw def live ko. waaw. waaye léeg-léeg ma def lépp yow de abonné wala nag. Thank you. dina bokk yi lu xeere ngay am foofu Ama Baldé moo wow ki ko la xeere koy jot Ama Baldé fii ko Pafos bi ñu ngi noonu mbokk yi amaa ñu noonu di nuyoo lekk baa ngi noonu borom ñaari carte d'identité yi carte d'identité Gambie di dox